at yëpp dañu gis ni euh, xale yi vraiment ñu ngi duggaat ci délinquance maanaam di di di di sàcc di agressé di di gaañ ni ni ñu ne nag ci zone bi waaw te loolu amuñu ko woon euh, am na sax ay temps bu tabaski ñëwee waa dëkk bi ñooy jël ay brigade di euh, di sàmmal seen bopp ñu bindoon lettre nag au niveau de la ñu ne suñu amee tabax bu tabaxee ñoom daañu ñu indil ay éléments daaw lañu ko wax ñu ngi tabax yaakaar naa balaa fin décembre fa dañ fa jaar sax mën ngeen jaar filmer eh, ndax mi ngi ci yoon bi euh, pour ñu am ay éléments rattaché ko post Mboro pour que vraiment bu ñu xëyee di rendre bañ a yem ci dëkk bi mais def tournée ci commune bi jàppale leen ci carburant ñuy def tournée ci yeneen dëkk yi pour que xale yi gendarme bi mi ngi fi ndax présence su gendarmerie rek facteur de sécurité te loolu vraiment moom la ñu wax fële ci daara yi jikko yi moo yàqu. ndax bu njëkkan am na euh, loo xëy xel yi jomboon nañ ko waaye léegi nag seeni morom ñoo leen di entraîner ñu def loo xam ne nii kenn xamul nu tudd parce que di sàcc di agressé di di kenn xamul vraiment li nga xam ne moo xew te Sénégal yëpp la nag kon nag loolu nag dañ ci war a taxaw ñoo ngi fexe aussi ci wàllu liggéey ñu jàppale lu gën a mën parce que immigration bi ah déggaguma de ni xale tey ba bokk nañ ci ndax li ëpp solo boo demee maa ngi wax ci kanamu imam fu mel ni Ndomor liggéey. ci benn espace bu tuuti ñu mën caa bay ñaari yoon ñetti yoon ci at mi étudiants yi sax am na ñoo xay dañuy dem ca jale liggéey fa am fa un million deux millions yoo xam ne seen scolarité yëpp foofu lañ koy jëm te noo ngi waxtaan ak ay partenaires yoo xam ni li ñu bëgg mooy àll bi yëpp sur un rayon de de de vingt kilomètres ñu indi fa forage ba képp ko am tool ñu indi la ndox dimbali la ci wàllu intrant waxtaan nañu am des partenaires belges pour financement de deux à trois pour les trois prochaines années te loolu nag euh, képp koo xam nangu nga liggéey mbaa nga am métier am nañu yaakaar na ne vraiment daan ci jàppale ki mu neexul dimbali daal mooy kii amul métier nga xam ni kooku wax dëgg yàlla euh, neexul waaye ku euh, métier moom mbay mi sax métier la fexee ba nga am tool jàppale ci ndox wutal la jiwoo engrais soo góorgóorlu tuuti jëlul ngay dem à